ni nag ak euh, kenn ci témoins yi sëñ bi noo tudd. man euh, Sego lañ may wooyee quoi Sego. waaw Sego tey gis nañu fii nii da ngeen si ngoonement bi dafa am jëye boo xamante ne jot ñu fee xew maanaam mooy accident boo xamante ne benn camion moo fël ay taxi ndax mun nga cee ñëw. waaw taxi bi benn camion moo jóge si kaw il paraît que côté yëngu-yëngu ba la def descente di ñëw quoi mais dafa perdre contrôle ba pare waa gars yi dafa euh, pédale yi moo dagg. mais bi muy ñëw après si la fël benn paa fële paa bi mu ko fële dafa dee dafa dee sur le coup mu ñëw ba côté bii ni commencé nag di ramasser affaire yi nag di ko ramasser si la ramasser taximaan bi mais bi ñaari xale ñoo fa nekkoon ah seen benn seen rakku papa ak chauffeur taximaan bi mais chauffeur taximaan bi ah waa ji dama daw après dimbal leen quoi pour def soin bi dimbal leen may leen ñuy génn maa ngi doon woote sax naan pour gars yi ñëw mais gars yi kenn ñëwul. parce que sa bu kenn ñëw bu pas sapeur pour ñi ñii ñuy taxaw ñu dimbal leen may leen loxo ñu génn mais gars yi na ma bàyyi sapeur si laa def sama kenn dalaay kattan may leen loxo ñu génn xam nga après waa bi mu génn mën na sama ñaari doom ñu ngi si biir ñaari doom ñu ngi si biir kenn ki trois ans la kenn ki 7 ans la am ñaari xale yi nag ñoom mu mujjee génn àddina ah waa ji nekkoon fële mais camion euh, camion mu jënd raxase set mu jënd ramassé set set oto set oto taxi bii si la bokkoon ki si yéegoon ndekki la doon jaay moom dafa damm. waaw loolu daal moom mujj am ay côté 13h la am instant bi Ahmed Aïdara di def euh, journal bi si lay daw nut juste waaye mu ma fekk ma taxaw fii nag action bi lépp laa fekk chauffeur bi après dafa tiit jaww jaar nii mais gars yi mujj nañu ko tax loxo. chauffeur euh, camion camion bi mais apprenti bi moom après ñun jàpp nañ ko ba toog fii di waxtaan ak moom nee moom carrément nee ko dóoral affaire bi si mur alméer mais bi mu essayé benn yoon dafa réussir réussirul après dafa mujjee bàyyi si la perte de volant bi nag commencé continuer loolu nag moo indi choc bi nii quoi. mais même bu fekkee choc day am état bi war nañ mën a jël xam nga seen sa ah, ah, war nañ mën a jël charge pour jéem a xool camion yi ni ñuy def parce que léegi nii nii maa ngi déggaale ñu naan am na benn camion bu fel benn gendarme face baaw muy si muy diggante du ndax dee dafa yéeme quoi dafa war nañ mën a xoolaat quoi ñu xool xam nga gars yi nan la ñuy def que lii mënul mënoo dégg chaque un mois am na ko mu rey dafa metti dafa metti parce que lii nii tey yàlla moo ñu defal sutura mais ñun ñëpp dañ doon ramasser ñun ñëpp dañ doon ramasser quatre sept oto la raas ñii ay blessure lañ am quoi mais sept bu fekkoon fii am embouteillage ñëppay dee. billaahi yàlla nag def na sut. taximaan boo xamante moom jot na damm wala njaaykatu na ko moom tax moom gaañu na mais dafa gaañu dafa blessé blessé bi metti. kële tam am na ay blessures yu metti waaw waaw parce que lu mu dee am na six wala sept blessures waaw sept blessé quoi mais metti na trop billaahi man sapeur yi ndax xaw ñoo yéex ñëw pour. baax a baax parce que affaire def na treize heures presque boo xoolee treize heures pile la mais dem nañ ba quatorze heures ñaata quatorze heures dix xam nga quatorze heures cinq gars yi doog a génn xale yi dafa yàgg. première soins yi il faut ñu jàngal ko gars yi bu accident amee nii gars yi xam nga war a il faut ñu jàngal ko gars bu accident amee gars yi a dimbali gars yi mais xale bi ni ñu ko bàyyee moom mu ngi doon yuuxu naan papa papa kooku bu ñu ko teeloon dimbali mën a sauver ki am sept ans mu ngi doon yuuxu naan papa loolu war na mën a sauver quoi mais man dama yuux ba sama baat bi dee lu ne laa def moo dagg sama loxo bi nii ni ma leen doon dimbalee noonu dafa yéeme quoi mais yàlla baax na yàlla baax na li may ñaan autorité di leen ñaax mooy nañ gën xool oto gars yi ñu koy dawal xam nga bu ñu demee visite technique ñu xool ku mënul passé ñu jël sa oto yóbbu mais lii dafa yéeme xale dañ jëli ji woon mesure pour préparer julli gi ñu ngi nii tey génn nañ àddina dafa métti quoi waaw loolu laa ma lu see wax quoi jaajëf merci beaucoup jaajëf euh, mooy kenn tamit ci témoin yi mooy oto bi euh, mooy témoin bi heure bi incident bi di am sëñ bi noo tudd. salaamaaleykum man maa ngi tudd Djili Sarr. maa ngi dëkk Ouest Foire. dama ñëwoon tey set sam benn xarit en fait ñëw naa sax fekk ko néegam moom mi ngi nelaw man ma ñëw toog noonu taal rajoom di déglu information mais subitement ma génn taxaw si fenêtre bi rek si laa gis benn taximaan taximaan bii taxaw euh, man moo tax sax man ma xam ne am na lu xew parce que benn taximaan laa gis muy def marche arrière di yéeg si beneen oto man maa ngi taxaw si fenêtre bi maa ngi koy yuuxu man naa ko yaa ngi yàq oto jàmbur or ko moom boobu gis na camion bi mi ngi koy daw taximaan bi moom xam na ne camion bi perte na contrôle donc boobu moom mi ngi daw camion bi mooy taximaan bii nii taxaw ni comprendre moom la camion bi naroon njëkk a jël man moo tax sax ma sóoraale ne yaa a quelque chose mooy non non taximaan bi taxaw taximaan bi dem na par instant yi nekk fi yóbbu nañ ko parce que moom dafa xaw a blessé femme bi jaay fee ndékki moom la taximaan bi yaboon a ñaari doomam ñoom ñoo tax man ma gis camion bi parce que man maa ngi taxaw maa ngi seen taxi bi mi ngi def marche arrière ci kaw benn oto jàmbur maa ngi koy yuux naan ko yaa ngi yàq yàq mais boobu moom camion bi lay daw non seulement taximan bi daw na sax ba ba wàcc tali bi mais camion bi mu ko fa fekkee parce que camion bi fii descente la dafa yëg descente bi premier descente bi fa la rayee pas bi un vieux marchand ambulant la heurté jaar si kawam ray ko prolongé mu yëg deuxième doodaan bi oto bi amatul frein kii dawal oto tellement jeune xam nga Euh, su ma xooloon may at amagul vingt vingt vingt vingt sept ans laa koy jox vingt six ans waaw vingt sept ans vingt six ans laa koy jox xam naa boo xoloon ba si xool quatre vingt douze quatre vingt treize lay doon xale bu ndaw la parce que ñun ñoo ko jàpp dafa génn daw parce que moom bi mu dawee ñun bi euh, moom bi mu dawee xamul parce que perte na connaissance perte na connaissance ñun bi ñu ko jàppee sax mi ngi jéem a suicidé wu di matt boppam xam nga naan man xam nga waru moon jàng dawal waru moon dawal oto bi xam nga boobu moom perte na connaissance mais après par la suite ñun fexe nañ ko jël dóoruñ ko gaañuñ ko ba fexe ko yóbbu gendarmerie Foire yi ñëw nañ def intervention sapeur ñëw na liñ fi mënutoon moom moo ko def parce que xale yi dañu souffrir si biir oto bi dañ fi yàgg chaque bi boo xoolee environ mi ngi am ay 13 heures sapeur yi bi ñuy ñëw il il faisait heures rek quelque 14 heures teg na donc kon ñoom xale yi dañu yàgg ci biir. ñi ñi li li na nañoo wax tamit négligence am na ci. waaw foofu mun naa ne négligence am na parce que man li mu la plupart choc yu may gis Sénégal fii choc yu may gis fii nii si dëkk bi euh, présence sapeur day metti pour ñu joindre leen pour jot leen rek dafay nekk problème parce que xale yi tey am man amaan na yàlla nag moo tudd seen dee mais amaan na bu sapeur yi teeloon ñëw ñu def premier soin yi kon mun nañ dund mais nag suñ borom. bu ne kii dafiy jóge loolu kenn mënu ci dara xëy na suñu borom moo ko tuddoon waaw mais tamit may lancer appel ci gouvernement Sénégal chauffeur yi surtout chauffeur surtout permis poids lourd nga jox ko xale bu ndaw koo xam ne responsable mu yor ay tonnes xam nga waa ji li mu def fii même pas fraction de seconde rey na fi ñetti nit te mënoon na gën a ñaaw parce que miir bee ko téye miir centre aérien moo ko téye dafa jël garde à vous yi teg ko ci kaw taxi bi ànd ak moom miir bee ko téye kon donc moom da dem rek di dem parce que pas bi mu njëkk a mbëkk fi mu ko mbëkkee at fi mu rayee environ def na 100 kon loolu rek xamal ni perte na contrôle heure boobu heure boobu maanaam bi dafa xawoon wéet waaw entre 13 la boobu tali bi wéet na wéetu sax mun naa ne parce que oto yi ñu ngi daw boobu instant yooyu am na ñaari enterrement yoo xam ne nii camion bi romb na leen ñaari enterrement yi cimetière yi lañ doon dem pour def ñaari enterrement yoo xam ne camion bi romb na leen su ma nee grand lii nii mun munoon na gën a garaaw man dama ko fekkee moo tax ma ne mënoon na gën a garaaw waaw mais man damay lancer appel ci gouvernement Sénégal ñu xool permis poids lourd yi ñu ngi koy jox parce que mënoo jël xale bu ndaw nga jox ko permis poids lourd camion bi yeb na ay tonnes mais mënul contrôler camion bi perte na contrôle. taxi camion bi moo yeboon garaawaay bu nekkoon fii nii mooy béton. ñun ñoo wàcce xeer yi. béton bi ñoo ko wàcce parce que li taxoon ñu koy wàcce boobu oto oto camion bi mi ngi ci kaw taxi bi. xale yi ñu ngi dund ñu ngi yuuxu ñu ngi leen di dégg ñun def nañ lu nekk wàcce nañ xeer yi jëm nañ daaneel camion mais munul nekk il fallait que sapeurs yi ñëw ñoom am moyen ak matériel yi tax oto bi déplacé wu noonu la demee ok. Euh, autorités yi maanaam nañu gën a maanaam euh, yokk maanaam mooy matériel surtout wàllu mooy soin soin soin njëkk yi daal. waa loolu si sénégalais yi. sénégalais si boppam nit ñi dañoo war a jàng premier soin parce que man lu ma gën a ñaawut choc bi. sama kanam la amee mais lu ma gën a ñaawtu am na ay nit yu ñëw taxaw ñun ñu ngi gis ñun ñu ngi def le tout pour sauver ñii seen vie mais ñoom taluñ ko ñu ngi génne seeni téléphone ñu ngi filmer yow tey ji journaliste jàngaluñ la yow nga gis nit ku nekk entre la vie et la mort nga tiime la ko caméra da ngay sànni sa caméra dem jëm ko euh, euh, sauver parce que loolu mooy parce que ku nekk mun na ko dal man mii mun naa xëy génn dugg ci loo xam ne nit moo fay fekk dimbale ma génne ma ci loolu waaw dafa am benn instant ñun sénégalais nag war nañ xoolaat suñ bopp suñ téléphone yi ñuy jël def ko comme arme lu xew ñu filmer lu xew ñu filmer nañ ko baax am na loo xam ne ni tey jii fii ku fi sa doom doon wala sa papa wala sa yaay wala sa cousine wala sa jarbaat doo tal filmer ko yaa ngi tal leneen donc bu ne kii xaw ma ko xamaanu ma ko bàyyil ma filmer ko pour publier ko après pour lan amul sens nga ñëw sauver nit ki nga am si tiyaaba moo ëpp sens téeméer junni yoon sa téléphone bi nga jël di filmer di yàq sa connexion xam nga loo xam ne amul sens bu fekkee filme am na ñoo xam ne seen rôle filmer la la preuve en est que sànq bi sapeur yi di yëkkati oto bi képp ku fi nekkoon yor téléphone sapeur yi identifié euh, euh, gendarme yi identifié nañ la presse bi sax am na image yoo xam ne mayuñ leen ñu jël ko parce que doomu aadama dafa fort te dañ ko war a voilà man loolu laa si gën a ñaawtu waaw autorité Sénégal gouvernement bi nañ taxawaat taxawaat si xam nga camion yi chauffeurs yi ñu koy jox ay xale lañ nekkuñ ay responsable xam nga ñu jox la benn oto nga chargé si ay tonnes rey fi ay nit après fu muy mujj mujjul fenn grand du mujj fenn ay trois lañ day tëj ba la joxaat la sa permis ngay circuler si biir dëkk bi soo reyaatee nit ñooy perte te xam nga dafa metti xale bi ñaar ñi dee ñoo bokk baay seen yaay lu ñuy wax seen papa lu muy wax metti na franchement waaw ku la wax na nag lii mettiwul moom day wax lu ko neex choc bi metti na trop métti na ba si kanamu yàlla ñun ñu ko fekkee nga xam ne ñun ñoo fekkee lépp ñun man instant yi ba nii may waxee yow man nekkuma je suis pas à l'aise yéen télé bu ma jël man témoignage bi ngay door a ñëw maa la koy wax waaw kon nag ñun nañ xoolaat suñ bopp ñun ñun sénégalais yi xam nga ñu yaraat suñ bopp am na yoo xam ne jaru ko xam nga ñu xoolaat suñ bopp wasalaam ok merci. ok merci beaucoup jaajëf xéwal. waaw ñu ngi nekk ak kenn ci témoin mooy eh, incident bi boo xamoon ne bi mu doon am sànq noo tudd. salaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj Mbaye. d'accord monsieur Mbaye gis nañ sànq yow fekk nga incident mooy accident bu fi amoon sànq euh, nan nan la mbir bi demee. ah bon lii moom mën nañ ni nattu la ak ndogalu sunu borom. waaw ndogal sunu borom la daal lañ ko mën a woowee mais tamit négligence am na si négligence am na si parce que ñun mën nañ ne lii nii yëpp fi lañu fekk affaire yëpp fi lañ fekk man j'habite toujours cela sama chambre ma nekk nii ci kaw comprendre nga sama copain bi sax moo ma yëgal affaire bi parce que fi mu commencee dafa yàgg quoi parce que kii bi camion bi depuis noor Foire après accident bi sax la ñuy signalé loolu nañu depuis Nord Foire camion bi sentir nañ ni dafa perte control ki ko doon dawal dafa perte contrôle bon bu mu ñëwee ba niveau bi ci la jël benn pas marchand ambulant moom da ko rey sur le coup waaw niveau bii nii ci kaw nii rek après par la suite ci lañ ñëw jël taximan bi fel ko xam nga waaw bon moom gaañuwul gaañ na mais bopp bi la quoi niveau bopp bi dafa ay blessures yu ndaw la rek benn maire la yeboon aussi maire boobu tamit tànk bi dafa damm c'est pas loxo bi la waaw mais fële moom franchement li fa am métti na trop métti na trop te neexul ci xol quoi parce que camion bu mu jëlee bu mu ñëwee ba ci intersection bi moom tamit mënatul téye camion parce que allure la doon daw lu mu doon daw dafa bëri bëri na trop xam nga négligence foofu la njëkk a ne ba pare ki ko doon dawal xale la rey na ñaari xale ci biir ci ci taxi bi ak paa bi ça va trois trois trois xam nga ak six blessés blessés yi bëri na parce que ay dégâts rek la def ay dégâts rek ay dégâts rek. ñaata oto la la ramasse ci yoon bi. bon ramassé six oto ramassé na six oto voilà ramassé na ramassé na lu bëri quoi xam nga rey na xale yi bon xale yi sax ñu ngi doon dund ci biir oto bi ñu ngi doon dund parce que jigéen ki moom dafa sof ñu sori woon parce que oto mi ngi woon ci kawam mais beneen xale bi bon ki am Mohamed la tudd fii la dëkk sunu voisin la mi ngi am ay 4 ans waaw juste 4 ans quoi juste 4 ans ay âge ci 4 ans la toll mais rafetlu wuñ ko daal ñaaw na trop trop trop trop trop xale bi. loolu négligence sapeur yi yéex a ñëw la wala no secours bi mooy yéex. avant sapeur yi ak secours yi nañ wax d'abord ci borom camion yi seen négligence tamit loolu ci da cay bokk quoi parce que ñu xoolaat aussi ñu ñuy jox permis ñu ñuy jox permis ak premier soin nañ ko jàngal sénégalais yi dimbali nit mais mënuñu concevoir ñun choc bu mel nii am ñaari xale yi ndaw. kenn ki à l'âge de 10 ans keneen ki 4 euh, ans ku góor ki moom 4 ans ku jigéen ki 10 euh, ans la am xam nga ñu ngi souffrir ci biir taxi bi amuñ lu ñuy def loolu jël seeni téléphone di filme loolu dafa ñaaw rafetlu wuñ ko ñaaw na trop trop trop trop man benn xale bi samay loxo la wàcce parce que mi ngi téye. yaa ngi ko téye wala da nga koo rëcc ci. ko génnee man sama loxo rek laa mënoon dugal. xam nga pour xool ndax mi ngi dund pour calmer ko xam nga yu mel noonu mu ngi téye sama ñaari baaraam yi mi ngi souffrir nu ngi ko najeeroon da nga xam ne mi ngi souffrir xam nga dafa jékki rek bàyyi ci laa xam ni xale bi wàcc na waaw xale bi wàcc na bon plus de 30 minutes ñu ngi toog di xaar secours yi aussi xam nga gendarmerie aussi def nañ seen liggéey ñoom aussi teel nañ ñëw xam nga ñoom ñoo fi jiitu sax sapeurs yi d'ailleurs di leen xaar mais gars bu ñu aussi ñun bon mënuñu def ñoom luñ mënul def mais ñun dañuy def luñ mën rek parce que ay doomu aadama la ñun ñëpp ñun ñëpp ay julit lañ lool bon loolu la daal pour le moment nii actuellement ni waaw boo amee beneen question rek. Mhm. non juste maanaam euh, sapeur yi waaw am na retard am na retard bu rëy sax bu mu ñëwee sax bu ñu ñëwee sax bon kon ñun ci choc la ñu fekkoon ñu ngi doon coow ak ñoom xam nga yenn yi du ñu ñuy puusloo ñun ñu bañ a puus parce que. xam nga ñun mënuñu concevoir depuis 13 heures ñu ngi fi ba 15 heures xam nga di trouver solution après ci la gars yi ñëw bu ñëwee bëgg dàq gars yi gars bon mën naa ne gars yi yëpp ci choc lañ nekkoon moo tax ci choc lañ nekkoon bon noonu la demee quoi mais daal ñu ngi ñaan état Sénégal daal ñu xoolaat bu baax ñu ngi jox permis yi surtout borom camion yi parce que xale bu ndaw la ki doon dawal booy la def na 3 morts ak ay blessé xam nga. ci benn coup loolu waaw da daw dafa génn daw waaw dafa génn daw mais dañ ko daaxa jàpp ko xam nga soobee taximaan bi ak seen rakku papa ba xale yi àndaloon